wor gi ñuy wor so demee ci alcorane yalla daf ko réglé lan la wax suma ati musiyama ilal leen lool moy lan ci arab waaw lu mais mais laaju bala sa position en tant que sunnite arab rek waaw lool moy ngeen ngeen matalé koor gi ba guddi gi waaw matalé ba guddi xam nga lool la yalla wax so demee ñu né légui dee leen naajee xëdd té teel a dog oui donc lo c'est contraire au coran ñu ci ku ci melni abdullah ibn omar ku ci melni abu urayra surtout c'était lui le champion moom moo doon champion inventé hadith moo do fofu la jógee différence yi am ci l'islam yëpp foofu mooy origine bi. c'est pourquoi ma jox la ci quelques exemples vivants yoo xam ne di nga ko xam. ok parce que soo seetloo lépp loo xamante ne am na divergence ci islam rek hadiis a ko indi ndax du alxuraan bi. alxuraan moom amul problème. amul problème mais li indi problème mooy interprétation bi ñuy def ci alxuraan ak hadiis yi loolu foofu la jógee c'est c'est l'opposé de ce que le Coran a dit te loolu si hadiis la nekk hadiis yooyu foofu lañ ko bindee nga ñëw tey jii. ma jox la Muawiya dafa amoon leen lu nekkoon ci xolam comme que baayam Abu Sufyan moo xeexoo yonent bi pendant vingt-trois ans pour que l'islam a am bi mu demee ba xamante ne léegi dañ leen di gagné dañ leen a def suñu liggéey. c'est un jeu. à à l'intérieur moo la waxoon ne la moo la nekkoon ci xolam nee na comme que terewul nit ñu nekk ay jullit dina fexe ba ñu nekk ay mauvais musulman ba lépp luñ jaamu yàlla sax du baax. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk Mbaye Daan ñu leen di nuyu waaw gis ngeen senegal fi seen diine ji toll maanaam jël sëriñ ci teg ci kaw fab saaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàppale ci diineem ji ñu taxaw ci tele di ko saaga saaga bi mooy di ko tuumal te kenn melul ne dara xew na maanaam lii mu wax tey bu ko waxoon ci alaaji bi wala mu wax ko ci sëriñ Touba wala yeneen sëriñ yi coow li na kur lii day wane ne nit ñi dañ leen jàngalu seen diina dañ leen jàngal mbiru tarixa lañ leen jàngal Maodo Faye mii tey bu invité woon nit wax ji waa ji wax ko ci Muawiya wax ko ci Sëriñ Tuuba du ko bàyyi muy wax lii te ñooñu ñoo gën mag ñooñu nekkoon Sénégal kon bu nit taxawee di saaga magu lislaam ci télé ñëpp seetaan ko war nañu seetaat suñ bopp wallaahi war nañu seetaat suñ bopp ndax ñi yonent bi moo leen taggal boppam moo neex ñi àndoon ñoom ñoo gën ci xeet yu gannaaw gannaaw gannaaw yonent bi ñii ñu dañoo bokk ci ñi gën xarnu bi doon jund ak yonent bi dafa bokk ci ñi gën yonent bi tàgg leen gërëm leen ñi ànd ak ñoom bokk ci ay waxam yoo xam ne ni Muawiya mii bokk na ci may yuridillahu bi xeyran yu faqih fi diini mu jële ko ci yonent bi joxe ko nit ñi di ci jëriñu bël ak yeneen ñi ñëw tey télé Sénégal ñëpp toog Maodo dafay indi nit saay-saay bu bon bi ak saay-saay bi mu fa nekkat indi nit di dal ci kawam te kenn waxul dara te ñii bu doon sëriñ ñooy sëriñu nit ñi ndax ñoom la yonent bi yar jàngal leen ñi jàngal ñi ba diin ñi jot ci ñun mu ñëw bëgg a dugg Buxaari ak Muslim di fa doxa dal naan la wéeru dëgg yépp ñoo ko fa def parce que dañ daan tappale lii kenn ku ne ne muut kenn waxul dara te buñ ko waxoon ci sëriñ tubaak ak Alaaji Maalik yàlla xam na ne télé boobu coow la na kuru te kii muy wax yonent bi daf ne ñoom bu Sëriñ Tuubaa ak Alaaji Maalik buñ dajaloo woon li ñuy def yépp ay ay ay lu yem ni jabalu Uhud def ko ay or du dab du dab Muawiya Muawiya mi tey Sénégal toog ni mel ni dara xewut ñi àndoon ak yonent bi sonn ci diine ji jàppale ko ba tey Sénégal yi toog bàyyi ay saay-saay yu mel nii saay-saay bu mel ni Maodo Faye muy jël ay nit ñëw di toog ci télé bi di leen saaga ana ñi daan wax naan kii saaga mag ñi yalla yàlla bo ñu dimbal mais li wallahi rew mu mel ni fuñ jëm xamuñu ko nañ tok ni rek gis na biñ fi téye mbokk ma le sonko waji sonko biñ ko fi téye gis nga ciowli li ni mel ciowli na tulé ak mal li mo gëna gën a pire fépp loolu maanaam jëlon jëloon jëloon ku fukki fukki junne sonko téye leen def len ki mo gëna yomb ci kanam yàlla lu mel ni ndax ñi yonent bi moñu ko wax te yàlla moo ñu ne yonent bi lu mu leen wax lu mu leen wax maa ko wax lu mu leen loo def leen ko kon saxaaba yi Sénégal buñ wallaay réew mi fi mu jëm nañ dem rek jël sëriñ soo xam ne jàngaluñ defuñ dara jël leen ci kaw moo dafay mi kër ga muy wootee wallaahi wallaahi kii muy saaga moo leen gën te nit ñaa ngi toog mel ne dara xewul lii mooy diine Sénégal lii mooy diine Sénégal ñii ñooy saaga saxaaba yi ñu jël di leen teg ci télévision nañ dem rek nañ dem rek Eh, Assalamualaikum warahmatullah rahmatullah mbokki wa jaadilhum billati hiya ahsan ñoo ngi leen di nuyu ci bëccëgu weeru koor wi ànd ak xol bu metti te jàpp naa ne li ma dégg ba sama xol metti ci li ci li ma jàpp de moo di ne jullit yëpp ku déglu vidéo bi de sa xol dana ci metti lool ndax wax dëgg yàlla bu ñu taawee ci plateau télévision di saaga saxaaba yi di saaga kenn ci ñoom koo xamante ni ku màgg la ci ñoom di saa di saaga ñi toxal mbindu maanaam ñi toxal waxu yonent bi sallallahu alayhi wa te ñu ne kaleen dalalkat jullit la bal dañu koy waxee ne moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy défendre mag ñi ah xam naa bu fekkoon ne dañuy bokk ci ñiy défendre islaam de dana gën a métti lool waaye nag kii moom ki leen dalal ci ñiy défendre mag ñi la bokk kuy défendre mag ñi nag lu ñu waxut ci mag ñi sa yoon nekkul ci lu ñu wax ci saxaaba yi sa yoon nekkul ci waaye lu ñu wax ci mag ñi moom bu ko defee nga jóg Maodo Faye mii toog dee di di jàkkaarloo waa ji muy saaga Muawiya di weddi addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax wax yu bon jëmale ci saxaabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa benn kàddu gi gën a ñaaw bu génnewoon ci mbindam Seex Alaaji Maalik ne bayit bii dee dëppoot ak alquran sunna wala bayit bii dee du dëgg ni ko Maodo Faye émission bi moom du ko àggali lii moom awma ci lu ma ci jeexi jaax man nag dama am lu ma métti lool lool lool te jàpp naa ne métti nañu baree baree bare mooy télévision yi sagar nit yiñ fa bàyyi bàyyi leen fa ñu ne ci turu diine man loolu métti na ma lool xam nga classe ak Maodo Faye gi nga xam ne feruñu ijji xamuñu sax lay mooy diine lu dul diine ndax lii ku fer ijji ci diine xam diine diine jaral la dara doo toog ak nit muy koy wax sa kanam mukk waaleykum salaam waaw lii dey wane ne rek day wane ne maanaam Sénégal faux billet bi ñu leen jox ci lislaam moo fa nekk am na ñoo xam ne xamuñu sax ñan ñooy saaba yi ñu àndoon ak yonent bi di ko jàppal ba diine ji lislaam bi yegg si fii doon teg seen bakkan ci taabal di xeex di góorgóorlu ba mu yegg si fii ba mu fi jógee ñu sàmm ko wax yonent bi ñuy fexe bañ jot si ñooñu sénégalais yi xamuñ leen ñan lañ leen xamal mooy ñoo xam ne dañoo ñëwoon ay nit ñu doon góorgóorlu ci seen diine nekk ay dong daal di jàng lañ doon doon jàng mooy la yonent bi doon jàngale te yonent bi la mu doon jàngale ñooñu ñoo ko tas ba ba ñooñu jot si waaye dañoo dañ leen fu mu ne bëri na ñoo xam ne boo ren day wax ay Muawiya ak yii ñoom xamuñ sax loolu xamuñ ko parce que jàngal nit ñi waxuñ leen maanaam dañ leen jàngalul seen diine yow ci tarixa boo bokk ban photo photo yi jëkkalante photo yi oto yi boo ci duggee boo taxawee ci mbedd mi même jakarta yi ay photo sëriñ lañ ci taf photo sareet fas léegi ah, na nga dajeeg woo xam ne ci jëbi sax photo sëriñ lañ ci taf maanaam nit ñi dañ leen nax ci diine nit ñi amuñ problème de sëriñ si ñoo leen di arnaque sëriñ si ñoo leen di arnaque waroon jàngal nit ñi seen diine te jàngaluñ leen ko xoolal waa sunna niñ sonne weeru koor bu jotee xoolal niñ sonne ci diine ji mais yàlla lu baax rek lay def gis nga bi nga xamee ne waa tasawuf ñoo yor ñoo yor li nga xam ne ñooy télé yi ak rajo yi kenn amul foo waxee waaye xoolal fu mu ne nii ni xam-xam bi di lawee waaye nag diine ji kenn mënu ko téye wallahi yolande wuy dugg ci dëkk bi la ñoom ñi ñoom sëriñ si kalifa ñi ñuy wax kalifa diine xaw ma kilifa diine xaw ma kalifa kilifa diine général yii ñoom ñëpp ñi nga toog ne bu xural dégg ñuy wax lii ci muhaawiya kenn doo digg kenn ku ci yee yàbbi seen bàyyi de li ma wér bu wér seen bàyyi ku mu déggoon ngay wax ci li muhaawiya dana dal sa kaw muy Serigne Touba muy Alaaji Malik dina dal sa kaw tey nag gis nga ko ñi fi nekk moom xam ne seen poos lañ fi nekkal di arnaqué nañu gudde ak bëccëg diine ño ñorul leen di saaga saxaba yonent bi ci kaw télévision ñëpp di ko gis ñëpp na mugum senegal waaw ñëpp na muut kenn du wax dara wi hay fu mu jëm fan lañ jëm laa xamul ñun fan lañ jëm bu ma Maodo fay demee ba am fetu jël kuy saaga saxaaba yi mu ko dalal ci télévision télé boobu tey dañ ko doon tëj jàpp Maodo fay tëj ko jàpp waa ji tëj ko loolu moo jaadoon ndax tey lii mu wax ni bu ko waxoon ci ñi nga xam ne ay ndongo lañ waxuma la sëriñ de Muawiya du ab sëriñ Muawiya dañ koo tagg yonent bee ko taggal boppam ñoom yonent bi leen tagg ñi fexe bañ jot ci lii yépp tey ji taxaw di ko di ko saaga ci télé ñépp ne mugus yal na yàlla boole ñu gindi waaleykum salaam wa waaw kii Maodo Faye moom Maodo dafay yàgg na ci chian pas-pasu bi de dafay nëbbatu nag ñoom loolu dafa bokk ci chian dafa bokk ci seen pas-pas taqiya maanaam nëbbatu mais Maodo Faye dafa bokk ci ñi gën a bon Sénégal maanaam ku bon a bon a bon bon ku gën a bon ñi gën a bon ci la bokk waaw parce moom Eh, ak am na beneen waayam am na keneen kooku dëkk kaw addi ak kii Niass mm, Ahmed Khalifa Niass moom it chiant la ñooñu ñëpp dal ci kaw daw ci kaw saaba yi rek koo ci gis muy dal ci Buxaari yi di dal ci kaw wax yonent bi rek fa la jëm si waaw waaye dañuy dañuy dee rek dañuy dee bàyyi fi diina ji wallahi même mag ñi sax gëmuñu leen ñoom ñoom ay sëñ tubaak ak Alaaji Maalik nii gëmuñ leen chiant yi gëmuñ leen waaw parce que ñooñu dañoo bindoon di tagg saaba yi ñooñu mag ñooñu nekkoon fi dañoo dañoo bind doon tagg saxaaba yi benn mag Sénégal mosuñu xam affaire da taxaw kuy saaga saxaaba yi ñoom xamuñu woon loolu. xamuñu woon loolu dem bu ñu demee ñoo nii wallahi man damaa jàpp nii de mais ku danaa si ñëwaat Maodo Faye Maodo Faye moom ku ko gën a bon man fu ma ko fekkaan audiom dama koy dal dem na ba dangootu doon déglu sama audio parce que ab saay-saay la Maodo Faye moom ku ne xam na ne ab saay-saay la ab saay-saay la booy wër naa fekk ba daje ba daje Maodo Faye jël ko yóbbu. saay-saay bu bona bona bona bona Maodo Faye bëggul sunna lépp loo xam ne dafa jëm ci diina Maodo Faye bëggul ko waaw cheikh bi lii lii lii ci defeetu mag ñi ci la bokk maanaam xam nga Maodo Faye mi moom ci tarixa tijaan lay lay woote woo maanaam lii ci defet defet bi nga xam ne mag ñi ci lay am mag ñi seen seen bi gën a mag bokk na ci mooy eh, ñàkkan jàng hadis bi hadis yi nga xam ne mooy wax yonent bi nga xam ne amuñ ci professionnel loolu moo indi problème bi yëpp mais buñ ko jàngaloon nit ñu mu leer seen bopp yi max gi bu ñëwee du fa mën a dugg loolu la même mbëri sax gis na mbëri yi nga xam ne dañuy dund sunna ak <laughs> yi dund ci sunna ak yi dund sunna du benn maa ngi gis waa ji barki démb ci benn vidéo mu ne waajooju dëkk Pikine kii waay xaw ma Ama Balde dafa wata nel nag xam nga Modou Lo moom da moom day jàng day gëstu boo ko gisee sax comportement am léegi dafa soppeeku sol mbubb moo xam ne ni mu koy colee macha allah mais keneen ki nga xam ne dafa dem moom mu ne murit la waaye mu mu watul nel bi mu watul nel nag sol benn xaftaan waaye ko bujj de defaat ba ne ko waaw yow de tasawuf nga nekk moom <laughs> gis ko muy fecc maanaam tasawuf ci boppam ñoo maanaam mooy xowoo xam ne fu ngelaw fekk yóbbu ko ndax dañoo téewut ci dara loolu moo tax Maodo Faye nag dafa bon Maodo Maodo Maodo Faye moom dafa bon moom gis nga dafa am ñoo xam ne dafa am ñoo xam ne xeex sunna ak waa sunna ñoom xeex sunna rek mooy seen liggéey am na wenn waaye bu ma fa doon wax nii moom ci telem bi la nekkoon dafa xeex sunna ba dee waa ji nekk fi RDB eh, bi tey bi tey xeex waa sunna rek mooy liggéeyam sunna rek lay bañ a gis Maodo Faye moom chiens yi la àndat di nëbbatu nekk ci ba dem ba jeex di fenkat boo xam ne di nafeq bu mag waaw yow koo xam ne ni ànd ak yonent bi jàppale ko def lu nekk nga ñëw fi di ko taxaw te sa sëriñ ku ko waxoon tey nga ne nga ne am na ki wax ne sëriñam la du sëriñam sax moom parce que gëmuñ leen ndax mag ñooñu lu mu néew néew sax doon nañ tagg doon nañ tagg ñoom saaba yi ñoom mosuñu mosu may gis Sénégal Sénégal moom Sénégal moom baaxam saaga saaga saaga saaba yi yonent yi bokkuñ ci woon da koo dab mag ñi sax xamuñu woon loolu ak tëdd doo liggéey doo doo gor doo yet loolu dafa dab diine ji ak ak doo julli doo woor ji tudde la soro la dafa dafa dab diine ji ak koo xam ne ñu ne yow yaay xalifa général nga waroon jàngale jàngale wala ba pare di yëkkati taabal yi ci mbedd bi li gouvernement waroon def nga da ko def loolu dafa dab diine ji bu Sénégal amee problème nga war ci wax ne tekk tekkaaral waxuloo ci dafa dab diine ji maanaam sëriñ sii ñu am nii lii nii nii ñuy woowee sëriñ nii feeg mu ngi fi Sénégal moom du avancé ci muusi bi rek la jëm ñoom seen bàyyee lañ nekkoon wàcce nañ ko bu yàgg dem fa waxuma la diine sax moom seen bàyyee lañ nekkoon ñoom nekkatuñ fa ñu nga ca leneen koo ci gis baayam dafa dawoon dëkk bu mag ba dem sanc feneen waaye ñoom ñoom ñëpp ñi ngi daw wuti Dakar almadi waaw politiciens yi leen gën ñoom ñii ñii ñii ñoom ñoo fi indi lii yëpp Maodo Faye Maodo Faye ñoom ñoo koy jàppale ci mbon gii muy def comme ci saaga woon ci sëriñ wallahi bu dajale woon sëriñ ñetti sëriñ yu mag Sénégal saaga leen ndey ci kanam télévision yi moo gën a yomb muy saaga saxaabi yonent bi wallahi te ñu ngi ko toog di ko seetaan waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ah li xam ba xam daal mooy mag ñu baax ñi daal kenn sosu ci yoon kenn fekkul fi beneen yoon bu ñu sosit bu mooy sa islaam nga jàpp ci waaw mag ñu baax ñi ci islaam imaam Malik doo ko benn yoon kooku mag mu baax la woon moo tax bàyyiwul fi kuy gën ci bo kuy Malik bàyyiwul fi it kuy kuy indi ay awraad yoo xamante ni da koy jox ngëneel yu wuuteeg awraat yi fi yonent bi salaasam bàyyi ak ngëneel yem fi bàyyi woon imaam Saafiyan noonu maanaam mag ñu baax ñi boo bëggee xam mag mu baax ci diine rek jëlal foofu quoi mag moo xam ne nii ñamu fi bàyyi dañoo commencé di gën ci moom ak di wëlbatiku ci moom ak di kii yëpp yëpp rek booy boo classé xam ne kii bokku ci mag ñu baax ñi def mag ñu baax ñi kenn gëñul ci ñoom mag ñu baax ñi bàyyi wuñ fi njaboot guy gis yàllaak guy wane yàllaak guy gis yàlla bàyyiwuñ ko fi mag ñu baax mag ñu baax ñi bàyyiwuñ fi ay taalibe mbër ak ay taalibe wàññaan kan ak ay taaweer ay taalibe njabeer kat ak mag ñu baax mi bàyyiwuñ ko fi mag ñu baax ñi téere yu baax lañ fi bàyyi yoo xam ne ni foo dem jàng ko ci adduna bi foo dem ñu ngi koy jàngale loolu mag ñu baax ñi loolu lañ fi bàyyi waaw diine jii moom koo fi dégg mu sos yoon ñaar rek am mooy mag dafa bokk ci ñi réer wala boog mag mu bon la woon ku fi ñëw fekk fi islaamit it ni ko yàlla tuddee muy yoonu jub yi kocc nga ñëw bàyyi ko fi bokk ci beneen yoon boo xam ne dañ koo sos moom itam gannaaw bu fi yonent bi salaasam jógee kooku itam booy bu a jox ko ña jox ko àtte bi ku réer la woon wala boo daa bokk ca mag ñu bon ñi rek en tout cas man de islam mag ñu baax ñi ma fi xam ci islam kenn sotu ci yoon kenn nii tam bokk ci beneen yoon boo xamante ni gannaaw yonent bi sallallahu alayhi lañ ko fi sos waaw loolu moom man bu may xool mag mu baax man foofu laa koy xoolee moo tax man boo ma ne mag mu baax damay xool ndax kooku moom bokk na ci benn yoon ci yoon yi wala boog bàyyi na sos na yoonu boppam ak ñum bàyyi ci ginnaawam itam ndax dañuy génn ci moom dañ koy wooyee yàlla ak dañuy jël ngë seen ngëneel di ko jox maanaam alquran dañ koy dañuy jël alquran di ut leneen lu ko gën yii bu ma ci gisee benn rek man dama naan ah déedéet waxagoo mag mu baax de man kay mag mu baax kañ danga may danga may wax ñi nga xam ne dañ fi bàyyi dañoo continuer di jàngale tawhid ñañ fi bàyyi dañoo continuer di topp ci sariya bi amuñu baatin bu ñuy làmboo boo xamante ni da leen di may ñu xëtt sariya bàyyiwuñ fi it taalibe yoo xamante ni du ñu jàng dara waaye ñu mujj fal leen ñuy seex bàyyiwuñ fi it ku ñuy wax ne mooy seen kuutal te du jàng du jàngale dara du jiite sax bay jàngale mag ñu baax ñi ñi nga dégg ñu leen di limal ñëpp naan diw de ndongo diw loon diw ndongo diw loon ndongo loolu xool ko boo ne Ibnu Qayyim ne ndongool kan la woon na ngay xool lan la Ibnu Qayyim def boo limee ibnu kasir ne moom ndongo kan la woon da lam la ibnu kasir def bu waa di nga xam ne kon sëriñam ba baaxoon na de ah salaamaaleykum wa rahmatullah